jërëjëf walil fitra day yàqit ni yàlla mooñe nit maanaam yàlla daa mooñ nit boo xoolee góor rekk xam ne kii góor la am déet boo xoolee jigéen xam ne kii jigéen la waxuma la xool mais boo déggee kàddu jigéen xam ne kii jigéen la boo déggee kàddu góor xam ne kii góor la loolooy fitra loolu mooy fitra léegi nag ngóor jigéen daf ko yàq bëgg a jëlee góor ci góor jigéen la ko man sax problème mi am toujours mooy léegi lu tax góor bëgg a nangoo doon jabari góor ni moom man problème boobu laa am loolu loolu yàqu te ko weesu góor gu nangoo doon jabari góor ni moom di ko demal marché di ŋàbb si woo poset jaaxalu leen man jaaxal na ma ah te kat mbàkki fi nekk ganaar gu góor gu la fi romb nga xam ne kii moom góor ganaar gu góor la ganaar ni ma am ful la dana am lii am affaire bi ci bopp bi di te du tey wax kóor kóoreer kóor man maay góor waaw waaw waaw. waaw. naa jox xam ne sax sa garabu bi rafet na de moom. waaw bisim bisimilah kaay toog. dégg nga fu la xar mu góor romb nga xam ne xar mii xar mu góor la am déet mu am ay béjjën moom xar mi su ne mbaa nga xam ne kii góor la way du fa nekk log-loggal xar mu jigéen mi boo gisee xam ne kii xar mu jigéen la parce que moom du am béjjën yekkee am bu dee béy nag béy moom day day sunnaal affaire day am sikkim béy moom day am sikkim moom boo boo da nga koy xool rek xam ne kii góor la demal sax ci petax yi xët yi xëti mu góor mbàkke day kaalawu waaw day am am sëq kaalawu nga dem ga maanaam daal foo dem rek boo gisee góor xam ne ki góor la boo gisee xam ñu ñëw nag ci góor ci nit ñi mu am nit ku doon góor ba noppi nangoo dem marché yor poset ni mooy madame diw xanaa waaru ngeen de seet lu ko rek li may wax ni seetlu leen ko rek waaw boo demee puut gi boo fa gisee mango gu góor danga xam ne mango gi góor la oui mango gu góor loo ci gis benn doom am na ful la déedéet du meññ parce que mu daa am jabar ne lu yàlla yërëm noonu muy yàqi jikko mbàkke di ko yàqi fitra noonu la yàqi diine àddunaa ngi tàmbalee bëgg a doxal ne nit mën naa nekk jullit ba noppi doon góor jigéen yéemu ca mu doon imaamu jàkk allahu akbar ku julli sa ginnaaw ba yàlla jàppaleen ndax àdduna mbokk yi fi ne day dox di jëm ci benn affaire bu garaaw tafsir musa dangay ngay dem bitim réew léegi ñi ngi tàmbalee wut ilimaam ju jigéen ju jiite juma waaw xam naa bu doon Dakar moom dana gaaw a bàyyi <laughs> bu takkee jigéen yi takk ci ndigg li ba noppi jiite bu subaa du jiite de ko maanaam soxna Nafi Sow boo ko laaju mooy la wax nga dëgg de ah? ko wax bu jiitee tey bu du jiite waaye fi ni nit ñaa koy jéem a incarné ci pénc mi te loolu du jàll junni at ak ñeent ci téeméer ci lan ak ñeent fukk ak benn ñu tàmbalee bëgg a sos yu mel noonu ci pénc moo xam daawuñu may jigéen mu liqaam duñ ko may mu nodd duñ ko may mu lu giléem papa léegi ngay jiite xanaa bëgg xajamal diine jëg jéem ko yàq moo tax ku yebu jàng sa diine ko mooy ñu koy xajamal yàq xajamal sa diine yàqal la sa diine waaw jàngal sa diine de bu ko fee lu ci bokkut mu ñëwee nga mel ne lii de bokk ci moom waaw waaw lu ko mooy dañuy kii rek bu ko defee ngay wax rek la waaj a wax tout à fait lu ñu wax rek nga ne tout à fait ah damaa xam li tout à fait damaa gis mu koy wax rek ci télé mooy dëgg Oustaz Mbacké Sylla mooy dëggantaan tout à fait nee mooy dëggantaan mu ngoog mu ngoog mu ngoog bu yàqee yooyu waa kay tey nga ñibbi Angleterre waaw baax na jërëjëf yal na yàlla fay la bu déwén ne yàlla nga bokk ci ñuy ñëw te weesu ko waaw ah, ah, anglais nu ñuy waxee nuyul ñu waa Angleterre say xanotu benn yes <laughs> ah waaw dama ko bëgg nuyul ma leen di te bëgg <laughs> bu yàqee yooyu yëpp moom ngóor jigéen day yàq nag addunyaa muy adduna si ndax adduna yàlla daf ko bind ci góor jigéen ñu ànd doom sosu am déet ñooñu dañoo bëgg ne déedéet nag ñu loi boobu la dindi góor lañ bëgg mu ànd ak góor doom sosu lu sosu mukk parce que yàlla du adopté aw nit ci yéen a ngi def nangam kon nag kon nag déedéet loolu nit a koy def nit mooy def loolu man li may bañ bañ suppu kànja kere ba ma yendoo parcelle ñu defal ma ko ca laa añ ca <laughs> ji topp ma rek oustaz ay boo añu woon sama kër loolu la ma doon wax kon daal defe naa ne yàlla disaltuma dara ay oustaz boo añee woon sama kër di ma topp rek ba ma ne ko di laa fay añee tafsir mu woo parcelle jeg ja fa dàqa suppa kànja <laughs> lépp loo dégg ci suppa kànja rek def nañ ko ci te man bëgguma suppa kànja ñu dem marché jënd fa kudd yu bees kudd yu diis yooyu ctt lal nag tegal ñu ay baa baa yi ñuy toog ñu tiim ko ma gis gaa yi kenn ku nekk def nii ma ne ah, xaaral ma def rek <laughs> ma jaxasi bi ma peelee seex la waa ji xam ne lii du baax mu ne ma ah, mbaa mbaa dalul sa palaat ma ne ko ah, sama palaa la kay ndekk yow du sama palaa waaye li ngay jànge foofu mooy bi ma defalee li ma bëggut walbatiku naa anca yàlla nag moo dul doxale noonu loolu laa bëgg a wax doomu aadama mën nga koo defal dara mu ne ah baax na waaye yàlla moom li nga def baaxul baaxul la lay wax laaj ko keroog Moussa bi ko yàlla ne dama laa soxla yaag say bokk dama laa soxla yaag say bokk délégation bi ñaata la mu ne ko def ko soixante-dix ak yow muy cent onze waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah ñu ngi bëgg ci seen teewaay def ko soixante-dix ak yow muy soixante onze Moussa wut soixante-dix merci ma yem foofu kon ginnaaw góor jigéen day yàq Euh, crime la di yàq jikko di yàq ni yàlla moo ñu nit di yàq diine di yàq adduna ma ne mën naa yàqit alxayaatu dund gi ndax dund goo xam ne ñaar am ànd te bébé du am bébé kat buur la am ci nekk nii léegi te bébé day am ni yasraakum fii yàlla nee na li tax ma bind góor ak jigéen damaa ba ngeen ne fi waaw ay doom di am waaye su fekkee doom du am léegi te dund gi fi mu tax sunu borom mbugal gi mbugal nit yi loo tiya sax dali musu koo mbugal aw nit musu koo mbugal aw nit fa xasafa al arda bi qawmi luut maanaam niti loon ña yàlla def ne suuf wannal leen ñoom ñépp suuf wan na leen yonent bi nee na am na ñoo xam ne ba fi mu toll nii àggaguñ fañ jëm boobu ba léegi ña ngay dem àggaguñ fañ jëm maanaam profondeur u teen booba ñuy wàcc waaw xóotaay ba kera bañ leen sànnee ci suuf ba fii nu toog pàbba àggaguñ <laughs> boobu xóotaay kenn mënu koo xam man di mënu ma koo xam naa asmaan la su sa borom la nëgg ni àgg nañ agsi nañ xanaa waaw ñoom ña ngay dem rek waaw xanaa yàlla dooy na mu ne déedéet wa amtar na yi alayhim xijaara suuf wan na leen ba noppi yàlla mu ne ma taw ci seen kaw ay doj waxuma nag ay xeer xeer mooy xeer bi nga mën a àttan doj nag mooy ponkal mii nekk mamel la xawma waaw boobu ñu teg ñetti xeeram yooyu doj yooyu la yàlla fàq rek dóor ci dëkk ba seetetetet moo tax yàlla su ko neexoon ñéppay xëy di ko bàkk ndax bu fàqoon xeer woowa mu jëm si dakaar mu ne ko mu sóoruwul ma sawaal luy xew mu ne góor ñu ko takk ceen mbaa caq ma luy xew mu ne ku julliwul suba bokk jàkk yi fees del am de mu ne ku wóorut bokk kenn du xëdd fa xasafa bi fa xasafa al ard bi qawmi luut wa amtara alayhim xijaara min sijjiil waaye sëñ Mbàkke yàlla dafa duma nit lóot ña ba noppi daal ne wa maa xawmu lóotin minkum bi baid ku tiit nag loolu la tiitloo gis nga wax ji ñuy wax nii ak yi oustaz Ahmed Daam Njaay doon wax sànq ak wax yi borom xam-xam yi di wax ak li tax ñuy dugg ak génn ka coow du dara lu dul xawmu lóotin minkum bi baid la ñuy daw yàlla nee na doj ya leen dumaa woon mi ngi nii ma yor bés bu ton dong ngeen doy la doj looloo tiital nit ñi waaw jar na tiit de wa maa qawmu luutin minkum bi baid li leen dumaa woon ñoom ña ko doon def ñu naa mu ne soriwuma bu doon boroom kër bu yor ab yaram waaw bu sëñ Moodu tooñee mu mu caw ko bu noppee day wax ah mën numbe yar bi kat soriwul comme yar bi soriwul da nga gis ko ne boo defee nangam sama papa da lay dugg ñu mucc ñu mucc ñu mucc ñu mucc te tekat te kat te naa ci sunu benn jàngalekat Oustaz Omar Sall <laughs> nee yàlla doon duma nit yi noo ngi koy def noonu waa Dakar teer ci loxo Mbàkke Sénégal sunu sëfoor yi ñoo fi dàqat dawal wax la ko tey man sax mën naa man sax man naa léeg-léeg ma def nii defu première def deuxième def nii troisième quatrième daal di sigg xool sama kanam ba ndar léeg-léeg ma def ko ni safooru Sénégal kenn daqule a dawal waaye ci àdduna si yëpp Sénégal moo ci ëpp accident mortel am de lu xew wa maa xawmu lootin minkum bi baayit maanaam dafa am lool buy xew ci xeet bu ko jàppee ndogalu yàlla da koy jàppi mbugalu yàlla te mbugal ak ndogal bokkuñu ndogal mooy Ibrahima Ndiaye këlaandoo <laughs> yàlla ko yàlla sàmm ndogal mooy muy góor góorgóorlu ci diine Mbàkke yàlla réer ay kayitam mu ne alhamdulilah loolu mooy loolu mooy ndogal maanaam yàlla def lay nattu pour yokk say garaat soo muñee waaw waaw soo jabutoo nag mu ne yow kay daan lay génn ci ñi muy nattu Euh, daa nga dégg Seyd Nooru Taal mu baax ma Seyd Nooru daa am fukki at nee na si buruwut mbàkke sojut banque sax defu ko te yàlla loolu la defalal firaw na firaw na musta soj biir musu koo daw firaw na musta njàmbataan firaw na musta siburu Firawna amul tension buy monte amul buy wàcc Firawna musta ñàkk appétit am xar lay ndékkee ñaari xar lay añe xar ak genn wàll lay reere Firawna ba muy téeméeri at ak lu topp waaw xam nga lu tax mbàkk yàlla moo dul bëre ko lompoñ daf lay yafal ba nga mën a bëri bu la daan ñu xam ne daan na mbër <laughs> moo tax tey jii la ko daanoon fottasu leen tey jii la ko daanoon allahu akbar tey jii la firaw na deewoon moo tax mu dégg feet ci nun feet la de cere yi ñuy lekk nii wàññul dara ndax firaw naa dee te ku deele ku mel ni firaw na nag war a noos firaw naa dee yàlla def ne fa qutia daabiru lazina zalamu wa xiila alhamdulilahi yàlla nee na fu ma dóori mbir mu dee rek bàkk leen ma maa fi man tey ji la firaw na deewoon yàlla na gën a dee ku niru yàlla na nga dee <laughs> Mbàkke loolu benn affaire la bu bu yéeme Seyd Nooru Taal waaw bi mu amee fukki at yooyu dara jotu ko moo woo xale koñ bi jënd leen biskit ne dama bëgg ngeen ñaanal ma ñu ne ko maam lu ñu lay ñaanal dem aljaan mu ne déedéet gudd fan mu ne déedéet lu ñu lay ñaanal mu ne dama bëgg a duggaat ci biir góori yàlla yi maam da ngaa génn mu naa ah, gé xaw ma génn naam waaye moom lay niru ndax dara jotuma xale yi lekk miskit ne ko maam yàlla na nga duggaat maam yàlla na nga duggaat maam yàlla na nga duggaat mardi mercredi jeudi vendredi samedi muy wàcce ci lalam tànk ba dem moo woo xale ne leen seen ñaan nangu na miskit laa leen jëndaloon tey bu yoon moom ganaar laa leen di jëndal ngeen añee waaw kon yàlla ku baax lay nattu ku baaxul daf lay mbugal walaay ndeysaan monsieur le maire na na xarit ba lay musibaal noonu la ko maam Moussa Ka ndeysaan ndeysaan mbaa ndax mu doon ëllëg ku ñuy baal merci monsieur le maire nee na xoolal xayrul anbiya ba muy laata doon xayrul awliya xayrul anbiya fanaan na ci xonte fanaan na ciy daj mu yow sunu maire bi kat c'est ci maire plus am na solo waaw waaw ah. am golo yomb na buy xalama jafe waaw am maire yomb na mais buy mbugal googu sëñ Mbàkke loolu la waral suñ accident yu bari yii ñu jiiñ ko permis yi ñu ne permis yi la daal di changé permis yi man basan nga ma yoroon permis basang nangu nañ ko jox ma permis su mel nii waaye teewul oto yaa ngi bëggante kon du permis ñoom luñ def dara